def un appel solennel ki nga xam ne moom la yàlla dénk réew mi muy le président de la république mu woo njabootam yépp tàllal leen loxo ndaxte moom lañu dénk réew mi ñun ñëpp nañu dajaloo dénk ko réew mi muy def li mu man guddi ak bëccëg loola na ab liggéey la boo xam ne lu ko bëgg a yàq lu ne na ci xar tànk tubayam ba loolu bañ a am ñoo ngi ko ci ñoo ngi ko ko ci ci ci ci ci yéene nañ ko ko ndaxte am réew ku ko yor boo ko yoree ba yàlla nga xam ne moo xam app ba mu ko yore booy dem da ngaa war a toog sant yàlla ni lii kat fii laa ko fekk fii laa ko jëlee loolu yéene nañ ko ko yéene nañ ko keneen koo xam ne tamit war wërsëgam def na ko ci réew mi waaye nag ñu wute ko ci jàmm.